الحمد والشكر لمن كل بيسارا لور دون دون سخ تند سرسارا لو سنائي ورد من بلا سخة مصاد من بني دايما انصارا لله كل لدى bi fukki waxtu ak benn tegalay fukki minit ak juróom-ñaar si Touba Madiana si kër opérateur économique bi di taalibe Serigne Touba fekk nanu mana yi lépp yemb na doon ay bernde yu mucc ayib jigéen ñi jóg sa fajar ak pas-pas bi nu àndal jublu si nag mën koo teel a yóbbu pencum daaru minam waane mel na ni sax pas-pas boobu moom la àlla la di doxe ne kat day jaayante du ko bàyyi ak kenn laxasaayu destination daaru minam kër ku tedd kii di sëriñ muntaxa mbàkke yi lépp lu xaw ci dëkk bi daal dañuy fas yéene ne moom kenn duñu ci man dañuy fexe ba euh, ni ko ay doomam taxawee di teral gan ñi fi ñëw ñun tamit ñu ànd kook ñoom fas yéene nag dara bañ a manqué ci dëkk bi yaakaar naa loolu daal mooy suñu warugar lii tax ñu mën koo fay mënuñu koo fay sax ndax defal nañu loolu wax dëgg yàlla du luñ koy fay waaye nag bu taxawee bisam mu làqu suñ koy ñaanal rek waruñu taxaw daal ba kenn dinañ ci man kon lii daal moo taxaw tey xewal xewal yi moom comme ci rek dañ ko yóbbu ba ca pénc ma rek berndeele nit ñi rek niñ koy defee rek bëgg nañ daal képp ku fi ñëw da nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar ñi fi bàyyi fas nañ ko yéene taxaw ñun nag dañoo bëgg ku ca ànd di ko taxaw rek ñun kenn ñu ca man bi ñu agsee ba ci penc mi kër sëriñ Muntaxa Mbàkke noonu la jawriñ yi nekk si biir kër gi ñëw jël bernde yu am solo yi bàyyee ko si àlla sila ñëw jébbal ko taalibe yi noonee la ko amale yi lépp nag ngir sargale ko sëriñam bii di sëriñ Cheikh Abdou Latif mi nga xamante ni doon na kenn sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides képp ku fi nekk xalifa mu laxasaayu takk ndigam topp ko ñun nag noonu mu toppee woon xalifa yi noonu nag lañ fas yéene toppaat ko ñun nag fi ñu féete sëriñ ndax tamit kenn du sant ku la deful dara waaye moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax euh, nangu gum nangu teel a nangoo topp sëñ Mountakha nu it fas nañ yéene rek nan ko nangule woon mu fas yéene topp ci moom ginnaaw ginnaaw loolu Alla sila sëñ bi am mbégte loolu ci moom ci taxawaayam te nag sax yemul foofu moom mii di Alla Sylla ci jàkka ji mu liggéey ci koñam amal na fa jàng kaamil alxuraanul karim ci suba teel si ne nag nii la koy wéyale doon taalibe tigi bëggul daal kenn yóbbul ko ko ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii